asalaamaaleykum mbokk internet bpactu point com ñoo ngi leen di ñëw di leen jaajëfal tey nag ñoo ngi fii ci tribunal bu Dakar muy lan jugement wu Ngaaka Blindé bi nga xamante ni am na ay weer ci kaso bi di affaire u faux billets bañ duggee ci biir nag gis nañ ni mbooloo mi bari na torop pour l' instant ñooy toogagum di xaar décision du juge ba xam dañ koy bàyyi ba xam dañ koy téye dinañ delluwaat si leeral yi ci kanam tuuti. dafa mel ni verdict bi tombé nag Ngaaka Blindé bàyyi nañ ko ñi ñaa ngi yuuxu fii victoire ñëwal ñu dem. 18 ans Ngakala un million et farci am 18 ans Ngakala un million et farci am 18 ans Ngakala un million et farci am 18 ans Ngakala Vous venez tous de constater qu'aujourd'hui les sieurs Baba Ndiaye alias Ngaka Blindé ainsi que son co-prévenu Khadim Ndiaye ont tous été libérés. Ils ont d'abord eu à bénéficier d'une liberté provisoire que nous avions demandé au cours de nos plaidoiries. En même temps que les avocats constitués, à savoir Maître Djibi Diallo, Maître Mohamed Moustapha Dieng, Maître Antambaï, et maître Domingo Dié ainsi que maître Sec, que je félicite. Alors, c'est une décision extrêmement, entièrement satisfactoire pour avoir fait droit à toutes nos demandes. Nous avions eu à démontrer l'innocence de ces prévenus. Nous avions mis l'accent sur le fait qu'aujourd'hui, on devrait plutôt libérer ces créativités, ces énergies qu'on ne devrait pas freiner. Ils n'ont pas leur place en prison, mais ils ont leur place au sein de la société. La preuve en est qu'aujourd'hui, tout le peuple était derrière eux.

savourons quand même cet instant de bonheur qui grandit le droit et la justice de notre pays je vous remercie. waaw kontaan mbégte mbégte mbégte parce que xam nga déjà suñu rakk la quoi xam nga rakk dafa xaw a jege ci xol xam nga tey bu doon sax ñun suñu génération la garaawul gars yi mën na kii mais suñu rakk la te ba pare nekk rakk bu nice quoi nekk rakk bu nice parce que ngaa ko foo ko gisee ay bëñam nga njëkk a gis mbalakkat la toñkat la donc euh, il procure du bonheur aux gens donc tey su nekkee situation bi ñëpp lay affecté donc moo tax fa ñu bàyyi lépp. ñëw support ko sunu borom na def na li kon dañ naan alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. léegi mais comme que nee nañu des na le 27 décembre incha allah ban conseil ngeen koy jox daal pour beneen yoon. non gën a gën a am déjà am courage. déjà am courage parce que xam nañ ne maanaam benn jour police waxuma la prison benn jour police neexul donc euh, moom boobu ba léegi mu ngi ci biir donc sant yàlla ba pare di ko mu am courage benn étape jàllal nañ ko des na ay yeneen étape ci kanam mais góorgóorlu. xam tamit sas bi ndax soo gisee lii xam ne Sénégal ñu ngi ci am donc na na waaw na na na nañ ko nañ ko jaayante gën a góorgóorlu xam ne nattu la nattu moom amaana mënoo dund te doo te nattu dal sa kaw donc euh, nañ ko ñaanal rek yàlla génn ko ci lii ba mu setu wecc mu mën a dellu nekk ci liggéeyam dimbali ay waajuram. mënuñu def lu dul sant aussi quoi sant parce que aussi y avait beaucoup de non-dits quoi y avait beaucoup de points problème bi mais man j'étais toujours optimiste xamoon naa ni tôt ou tard day jeex. parce que fay sama kanam la xew woon jete je suis j'étais aussi un témoin volontaire du instruction bi donc xamoon naa ni tôt ou tard mu yàgg mu teel bisi na ñëw mu jeex donc tey mënuñ def lu sant donc disons alhamdulilah mu génnaat nekk si ay yitteem xaalim Thiam nekk si ay yitteem parce que ñoom ñëpp ci yoon lañu nekkoon donc euh, noonu la demee quoi donc disons alhamdulilah quoi ñu ngi sant bu baax. sama kër lañ ko jàppee waaye. dañ ko dénoncé woon ou bien nu mu demee woon. non non y' a pas dénonce rafal contrôle normal la woon maanaam moom ñu jëmoon sama kër man ma gaare moom mu gaare ñu génn yam ci autopolice donc muy def contrôle normal contrôlé ko. après ce qui est arrivé yokk ko wax ay problème ay machine ay jafal baayal donc ba problème bi yegg fu mu yegg quoi. moom faux billets fu mu jógee woon. non c'était pas des faux billets de banque donc mu ngi jógee woon ci Xaadim Thiam moo ko defaroon donc euh, noonu la noonu la demee quoi pas des faux billets de banque. mais j'espère que du ngeen ko utiliser ti non pour pour la première fois peut ñu def erreur bu mel nii prochaine fois bu ñu koy def doon wut autorisation donc njuumte la affaire de jeune la il a Ngaka il a ans ñu ñëpp bu ñu am on a fait pire que lui quoi donc erreur la mais tey fii la ko yàlla yemale woon jeex na jeex na donc disons alhamdulilah. li rafet na Ngaka Blindé nii rek la mënoon demee ah waa Guédiawaye mobilisé wu ñëw fii lii bu amul woon dañuy rus parce que daa deful lii tax ñu téye an yi mu fi toog waaw ñun tey moom ñu ngi kontaan ñi kontaan nañ bu baax a baax parce que tey suñu yéene moo nekkoon loo xamante ni mooy ñëw jële fi ñun loolu lañ fi indi woon tey te yàlla suñu borom ak Serigne Touba dimbale nañu ba nga xamante ni tey euh, liberté bi nga xamante ni moom moo taxoon ñu mobiliser wu jugee Guédiawaye ñëw fi pour jàppale Ngaaka Blindé suñu xarit yàlla def na ne am nañ ko. nit ku baax la ku yaru la ku fonk ay waajuram la ku bëgg ay art ay ay ay fansam la ku bëgg ñoo xamante ni ñun ñii nga xamante ni dañuy lay lay àndal toujours suñu kër lay lekkee fa lay defee lépp sama gaayin la lii daal lañ ko doon ñaana te kontaan nañ sama xol moo fees ba ak Serigne Saliou Mbacke mënu maa wax. sant yàlla rek lañuy ñuy def instant bi julli si yeneen bi sant yàlla lii lépp lii rek lañ bëggoon fii boo xoolee waa Guédiawaye rek ñoo fi nekk ay dëkkandoom te lépp yaram moo may rek am na mu doon mel. kenn du fi ñëw ay magum yàlla am jëmm ñoo bàyyi seen liggéey i seen yitte ñëpp ñëw wax dëgg yàlla muy nit ku baax ñu koy ñaanal lii ko daloon yàlla bu ko dara te yàlla bu mu dara ci kenn di ko wax nag géej waaye namm nañ ko dëkk namm ko ñëpp namm ko. waaye géej waaye taxawal nañ fi ngaa ko Blindé góor jigéen mag ak ndaw ñëpp ñëw nañ fi taxawal ko dooleel ko wan ko ni ñoo ngi seen ginnaaw